tey jii samedi le 25 février 2023 ñu tënk leen informa quelques informations yu am ci guddi gi tàmbalee ko ci mbirum Fulbert Sambou ak Didier Badji mbirum daal maaman la seeni mbokk tàmbali ngir xam exactement ñoom ñii lan mooy seen mbir dañoo réer dañ leen a faat wala ñoom daal seen réer gii ñu mujj jékki-jékki rek réer mër daal lan moo ko indi ba daal ñoom ñu fas yéene daal dem ci seen xoy ci seen xàmb yi. ñoom ñi dëkk ci île bii di Niamoune nekk ci département bu Bignona ca Casamance ñoom daal commencé nañu nag daal amal ay mbir yi yëngu-yëngu seen mbir yi aada yi caaju ngir daal xam exactement daal ñoom ñaar ñii nga xam ne dañoo wax ne dañoo réer fan la ñu nekk lan mooy seen mbir kenn ki ñoom sax gis nañ ko ba denc ko waaw am nañ ko xam ne ba fii kenn gisu ko ca fàtte ñoom ñaar ñii ay ay gendarme la ñu doon la ñu woon ñoom ñi nag bokk na ci seen mbokk li ñu daal mënut a dégg benn yoon mooy dañoo lab dañoo dugg ci géej gi lab fa ñàkk seen bakkan loolu daal jàpp na daal loolu du lu xel mën a nangu jàppale daal meneen mbir am na leneen lu ci nekk euh, si seen mbir lu bokkut ak li ñu déclaré ba tax nag daal ñoom ñu sol seen tëri traditionnel dem ko seeni i xàmbak seen i euh, euh, mbir fas daal gëstu ci mbirum seen i mbir daal ngir daal mën a xam exactement lan la mooy mbirum seen ñaari doom yi nga xam ne dañoo réet kenn ku mu ngi ñàkk bakkanam ñoom nag bokk na ci tam li ñu def mooy seeni i daal ñoom dañoo daal di déposé plainte ngir sàkku daal mbir mi ñu am ci lu leen leer ndax daal li ñu wax ne mooy am seen mbir muy réer ba kenn ki sax ñee daa lap ba ñàkk bakkanam daal ñoom neenu mënuñu ko dégg muy mbirum Fulbert Sambou ak Didier Badji ca fàttali kenn ki ñoom moom feeñ na ba ñu denc ko keneen ki nag ba fii ñu ngi koy wër daal ba fii daal xamagun ci ay mbiram dara Mamadou Ibra kan ndax dafa naa nekk candidat ngir bokk ci ñi laaj réew mi atum 2024 question la bu ñu ko laaj lii la tontu moom journaliste bii di Mamadou Ibra Kane nekk itam patron bu group E-Media moom day commencé na daal amal ay yëngu-yëngu ci wàllum politique ndax kat dafa lancé benn mouvement boo xam ne mi ngi ko tuddee demain c'est maintenant maanaam daal suba tey jii lañu koy liggéey ci gàttal rek loolu may wax ji bi mu doon lancé nag mouvement bi tey jii question lañ ko fa laaj ne ko ndax da ngaa doon candidat ngir laaj réew mi mu ne daal man awma lenn lu may dàq lu nekk rek mën naa nekk lu ne mën naa xew ndax man. sénégalais laa te damaa am yéenay liggéeyal sama réew dama fas yéene daal taxaw ngir taxaw sama mbokk yi sénégalais kon ba tax daal liy am ëllëg moom lu ne mën naa nekk ah, waxut na nag candidat doon waaye daal am nañu commencé wax xaat ne candidat doon ngir jiite atum ngir jiite atum 2024 waaye daal bi ñu ko laaj daal moom nee na dàqul dara ndax daal yitteem mooy taxaw askanu réewum Sénégal. ca Fatick préfet ba jël na dogalub aaye meeting boo xam ne waa Pastef bëggoon nañ ko amal ak waa COSER di mbootaay gi ëmb. ndaw yi bokk ci alliance pour la république di APR tey jii lañ ko bëggoon am ñoom nag waaye préfet bu département bu Fatick moom def ko tere bu ñu sukkandikoo ci RFM moom nag li mu wax daal moo wala mu daal di koy tere mooy li ñuy wax daal day ragal daal ñu trouble l'ordre public bi waaye tam ay nit daal di leen di rax ki seen biir def ay mbirum ñooteef ba tax daal mu daal di tere meeting bi nga xam ne COSER moom bokk ko bëggoon na ko amal ci place bu ñuy wax berse de Sine ñi nga pës ñoom bëggoon ko amal ci terrain bu guy gi nekk ca njaay njaay ñoom nag COJER bu euh, di mbootaay gi ëmb ndaw yi APR yi ñoom ginnaaw te nekk foofu ci Fatick daal ginnaaw benn autorité administrative yi xamale daal ne duñ ko mën a nangu ñoom d'accord nañ ci li nga xam ne moom la autorité bi wax ne d'accord nañ ci tam ndax li mu wax ne daal dañuy bañ trouble à l'ordre public d'accord nañ ci loolu yi ba sax ñoom daal dañoo mujjee organiser benn assemblée générale ci benn hôtel bu nekk foofee ca Fatick Pastef nag ñoom génn woon benn communiqué ngir wax ci donte na daal ne ñu waxtu yii di ñëw ñi ngi xalaat ne ñoom daañu wax ci dogal bu ni mel waaye daal kon ñoom ñaar ñëpp di COSER ak waa Pastef ya nekk foofu ca Fatick bëggoon nañu amal meeting tey jii préfet ba ñaar yëpp la aaye. xabaar bu ñeel bitim réew dañu dem ci réewum Tunisie tey jii ay manifestation amoon na fa maanaam daal ay téeméeri téeméeri nit wàcc nañ ca mbedd ya di naqarlu kàddu yi doy waar yi nga xam ne président bu réewum na ko di yoo xam ne kàddu yi racisme mu la ay téeméeri téeméeri nit tëjee ci gaaw gi ca capital bu réewum Tunisie di Tunis ñu ngi naqarlu bu baax a baax kàddu yi nga xam ne moom la euh, président bu réewum Tunisie wax ci Afrique yi nga xam ne fii la nit ñu ñuul ñi euh, féete mu teg leen daal kàddu yu day waar nee daal ay nit lañ ñoo xam ne du nit ñu euh, baax ci am réew nit leen ñoo xam ne itam ay nit ñu violent lañ nit leen ñoo xam ne itam réew mu ñu nekk mën nañ koo yàq nit leen ñoo xam ne itam daal bu sañoon dañ génn réewum moomee di réewum Tunisie ndax gis ne dañ faa commencé bari te bu yàggee daana soppi culture wu naan daal dana soppi doomi réew yi Tunis yi def ci ñoom ay jikko yoo xam ne du jikko yu baax mu jàpp ne daal di ñu ngi ñuul daal amuñu solo baax ñu dañoo commencé bari ci am réewam migration façon wax yi mel noonu nag tax na ci adduna bi ñu baree bay nag daal di euh, réagir di naqarlu wax ji te ji rek réewum Mali itam génn nañ communiqué bu gudd di ci wax daan ci ñëw sax incha allah waaye daal foofu ci réewum Tunisie moom ay artistes ay xam ne daal ay militants lañ de droit dolam ñi nga xam ne itam ay représentants ci société ñu bare bay daal ñoom tey jii dañu wàkk ci mbedd ma di manifester naqarloo bu baax baax li nga xam ne moom la président bu réewum Tunisie def ñoom daal li ñuy wax mooy nee ñu Tunisie réew la moo xam ne ci réewum Afrique la bokk réewum dimbalante la réew la moo xam ne itam day xajal bu baax a baax ay migrants yu bëgg réew ñëw ci réew ma moo xam ñu am papier la moo xam ñu amuñu ab papier di sàkku nag ci président ba daal na daal di génn nag jéggalu kàddu yu doy yi nga xam ne wax na ko